bu len faté abonné ci sen sen YouTube Samsung TV jant bi leral aduna té activer cloche de notification bobé ngeen sen Samsung ci sen écran samsul huda ahmad afaaqi Allah samsul huda ahmad Samsung TV mooy 3, télé. Samsu TV mooy suñu Samsu TV ñooy suñu Samsu TV mooy la ñuy bëggee ba aljana waa Shamsu TV la ñuy bëggee ba aljana di ko bëggee b a studio bi ñun kon nag nga ne alquran Talla Gueye ñu dana doon ci doomu mu góor bu alquran liiru na dañ ko ci néeg mu tekki bokk jullit yi waaw suñ góor da nga gaaw rek yow mu ne ñuy ci portable bi rek yaa allah ji ngay xam nga masalaw jàmme sama rakk nga waaye dina jàpp waaw ndax may léebu daf may yéegul nee na ngay saar da koo jox mbubb sëñ góor a jox ko mbubb muut mbubb boppam bàyyi jóob man ngay yéegu waaye baal naa la ndax sama rakk nga ah ba ma gëj a xott yàgg na de mbaxana nii ma sol sax bàyyi isaa jóob sa rakk ma ko jox di suñu doomu nijaay macha allah bokk di jullit yi ah yow ndékki la na non dama ko kii day dama ko def bokk si daal naa am bàyyi si nekk ndawalu ku nit kenn ku nekk la nga seqal moom dafa ñu yaakaar sa man de loolu laa foog dimanche la ñu bokk ay dimanche la ñu bokk ay man ak moom rek xanaa suñu soxna si bopp muy doon yi boppam di suñu jarbaat di suñu rak ñu dénk ko bàyyi jóg sama xarit moo ñu doon dagal ñu ñaar rek di leen di man ko bàyyi kër gi bi ñuy xooli gàtt moom ñuy ay ba ci muy way ko boo noppuwul ma bay mu ne pourtant dama bëgg nga añ moo tax ma lay woyal billahi mu ne ma dama bëgg nga añ moo tax ma lay woyal moo tax Seydou Maliou li nekk ci léegi ci alaaji daal si sa xam nga ci bu la rek tax bay Cheikh dama ko daan wax ni ñun sa la ni jaasu kilifa benn gënu ci lekk ma ko yow bàyyi sax boo yilif bu ngeen wékkee mu walla tàpp muy na benn ci man bokk ci jullit soxna Aminata nag ba diggee képp ku ko lebal kenn fayal la ko moom turu turu yéene wu ëpp tax kenn ku nekk ci ñoom ñaar sa dundoo jiitu sa bëri katam sax bokk yi jullit yi moo tax sëñ Mouhamadou allah ba ñëpp ñëpp wax ndax ab allah. ànd ak say nag ànd ak ñoom ba ànd ak oustaz bàccu bopp mais nga xam ne bis bu nekk amul jot day def uniforme waaye waaye Cheikh a ko jaral ndax kat ah ndajam alquran boo ñëwul fay def bokki jullit yi bokki taliba yi ñu ngi jël soxnaa ñu ñu jóge fii laa wax Mourtala ci topp turam te sëñ ma liggéey la àndal muy sëñ Abdourahman doyul mu jëlaat ki toppaat ci sëñ Abdourahman indi muy bàyyi taam doyul macha allah am na koy juru boppam sëñ ma liggéey doyul am na koy juru boppam taala fay doyul am na ko saas bàccu bopp doyul am na sëñ ma liggéey ak yaat ma moom bokk yi ba ñu di bokk talibe yi macha allah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di dellee sant alaaji ngeen dem sax su ma des bor su ma des bor ndaje bu ma fekk laa ko sant am na moom doon ma jaaw la am na teg wàllam maa sama wax bokk ju liggéey bokk bi soxna Aminata Seck mi oustaz Mbacke ci may wax def loolu ko loo xam

ku ma bëgg ku ma yërëm barki dem barki dem damaa dem Kébémer tase moom la mu yor ci xaalis mu daal di koy jox ma ne ko yàlla la yàlla jox lu ñu mu gëstu bi mu yóbbu barki dem daa wax ba ñëw sama nekk nga salaamaaleykum am nga gan ma ne ko waaw mu ne sama jàngi bàyyi damaa bëgg nga ñëw ma ne ko soobee yàlla voilà dinañu fanweeri at dama cérémonie damay gam dama dama conférence dama fekk moo ma ko lebal ma koy jéem a fay jërëjëf ah bay. sama goro gaañu na maa ngi ah, ma rakk bàcc yàgg ma nee na kàddu bàcc li mu koy dëggalee mooy soxnaam bokkal léegi bay. gaañu na waaye joxul leen bàcc du dem du dem fu bari heure bii du pour sam la koy nit comme nii ñëpp xam ne maa benn jëm lan heure bii du pour sam la koy fekk moom may li mu wax dëgg waaye nag ah bu la labal jëm boo amee jom jëm rek nga koy fekk sëñ Gora sëñ Modou ñuy dem di leen gërëmal président Abdou Diouf suñu xarit mag kàddu yu mënta ñàkk muy kàddu yu teraanga rek muy loo xam ni soo ko bokkee yaag say nawle kenn ku nekk na bu na sañoon ba jëlee kàddu mu gàtt de boo amee xel dëgg-dëgg war ngaa gàttal dolli santaat yàlla bu baax julli ci njool màkka di tëbbu ci barke Cheikh Ahmad Tidiane Sërif radiyallahu anhu di ñaanal sunu maam Ahmadou Ndak Seck yal yàlla dolli ngërëm ci moom taas suñu ci barkeem ak mbooleem lu mu jaboot ñu ngi nuyu xalif général maamam Baye Ass moom mi aaye wattu xadara bi yal na yàlla jàppale ko amin yal yàlla taxaw ko amin na yàlla suturaal ko amin baggaal gi nga xam ne ñu ñëpp ñoo ci bokk nekk moom muy capitaine gaal gi Baye Ass yal na yàlla dimbali ko ba mu teer gaal gi ci jam ndax bu muccee jàmm ñun ñëpp bokk mucc kon ñun ñëpp ñoo ko war a bokk ñaanal ko yàlla ni mu daa ñaanale ay magam yi ko jiitu woon fii ndax képp ku fi mas a nekk dinla la ñaanal yàlla ba yàlla nangu sunu ñaan ci yow lépp ànd rafet ba yàlla moom la keneen ñëw noonu lañ koy ñaanale yàlla di ñaan ñi ko woon ñëpp yal na yàlla dolli ngërëm ci ñoom yal yàlla taasu ci seen barke xadara bépp seen murtalaa la di bàyyiwul kenn ci ñoom di nuyu maamam Baye Ñaaxa Seck di ko siyaar di ko ñaanal fan wu gudd ak wér di nuyu maamam Bajjan Araman Seck di ko ñaanal fan gudd wu ànd di nuyu sama baay yi nekk ci tant bi ak ci dëkk bi yëpp nekk samay baay nekk samay xarit dama bàyyi xel guddi ak bëccëg boole koog di jël teraanga di ma jox ak wan ma cofeel gu ma sëkk loolu ñëpp ko bokk seede kon ameel naa leen cant ameel naa leen jaajëf ameel naa leen ñaan man ak ñi ma ko bokkal yan na yàlla dëgëral seen taxawaay Baay Seex Ahmad Tijaan mii ñuy ñaanal yan na yàlla dolli ko leer lépp luñ ko fi ñaanal bi fi bi fi jógee ba léegi luñ ko ñaanal yan na ko yàlla nangu bàyyi Seex Ahmad Tijaan ku neex a ñaanal la ndax nit bu jukkoom rafetee fa tabaarakallaahu yàlla dimbali na ko waaja dañuy woon sallallahu alayhi wa sallam wala njol makka alayhi salaatu wa salaam lan moo di dugal àjjana biñ ko laajee na ko nit ban tiyaaba ëpp bi leen di dugal àjjana yeneen yoo xam ne nit koy def du dugg àjjana. bari yeneen yu nit def du dugg àjjana. waaye nee na ëpp. ñaar yii la. mooy taq wallaahi. wax xuluxul xasan ragal yàlla ak jukko ju rafet yii ñaar bari na ko dugg na te ñaar yee la fa dugal te yii ñaar moo fees dell ci Baay Cheikh Ahmad Tidiane looloo tax ñu mën a toog fii di waxtaane mbiram moo tax ñu ñëpp war a góorgóorlu bu ñuy dund rafetal suñu jikko rafetal suñuy jëflante rafetal suñuy kaddu rafetal suñu lépp ndax bésa ngi ñëw faw faw dinañ waxtaane waykat ba daa way ni inamal mar'u hadisun ba'dahu fa kun hadisan hasanan liman waa nit faaw ñu waxtane mbiram ginnaawam su baxé dees nako wax bu santé jóob dees nako wax mo xam dinay béral wax ja mo xam diñ koy yell nit ñi kenn kenn mu ta wilaya nga mel na la neex jogu fi ta kenn du ko tub ah loolu yalla may ko kenn mënta ñàkk ndagam nag loolu mënta ñàkk war nañoo góorgóorlu bu baax defar sunuy diggante mu jub defar sunu diggante ak sunu borom waaye defar diggante sunuy mboromi mbindeef bàyyi Seex Ahmad Tijaan looloo nekkoon jukko ndax dañoo wax ni diine ñaari xaaj yii la ibaadaat la ak mu amalaat benn benn mu tëjam bàyyi moromam benn bi yàlla kotta ko moom muy lépp lépp lu aju ci jaamu yàlla waaye loolu rek doyul de yàlla mi santaane ji jaamu ko moo santaane bi ci def muy jëflante gu rafet suñuy diggante bu nu war di jëflante suñuy diggante kon nii nu yàlla sant ñuy julli sant nu ko ñuy woor sant nu ko ñuy aj makka noonu nu yàlla sante ñuy rafetal suñu jikko noonu la nu sante jëflante bi rafet ndax loolu inu jikko bu rafet bi waqulu للناس حسنا واقيموا الصلاه واعطوا الزكاه يا دغلنا جولي دغلنا جوخي اسكا واي تي ايبا خمغا لوما جيتال بوغين دي واخ ak nit ñi na wax ji noy nepp te rafet bu rafete waaye di julli rek di joxe asaka di def yu baax yëpp te yar rafetaloo sa jikko ah, loolu amul benn maanaa dafa am ku ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi da am ku ñëw ci yont yàlla Muhammad alayhi na ko diw jigéen la ka doon wax loola jigéen la. naa jaamu yàlla na ko diw mën naa jaamu yàlla lool. mën naa woor lool. mën naa julli lool. kàddoom dafa rafetul. waaye kàddoom rafetul. li muy wax daal li muy wax. ci deri jaam yi. kenn kenn rafetlu. da cee boole ñàkki teggin. lu mu mën a julli julli julli. njol kooku da waay lu mu julli julli lu mu mën a mën a julli. ba yaboo mu xam ni. ëllëg sawara lay dem. ñu laajaat ko keneen. kooko de xam na ay julleem bëriwul. mu ne kooko de xam na ne ay julleem bëriwul. xëy na du naafila farata rek lay julli dem. bu dee weeru koor moom rek lay woor du woor la tey day sarxe. du xeeb dara. waaye ñu ne ko nag. waaye ñu ne ak ka téew làmmiñam. Ah, ñool màkk ni jëmm jooju. nitu àjjana la. maanaam bu dee waxtaanee ju koy bàyyi sama tiyaan. jikko yi rek. bëgg a wax jikko yi. ci la tënkoon ay jukkoom ndax daa mën a jàng. muy loo xam ni. kenn ku ne ci ñun. a ah, loola dalaa tënk. mbokk yi yal na yàlla boo leen dimbal. ba bàyyi Seex ma Tijaan jikko bu rafet bi mu fi nekke woon. woyof tooy fa tabaarikallahu te diis gann ci bàtt yi te nooy nepp bàyyi Seex Ahmad Tijaan damay ma ne est-ce que na man damay toog ba yàgg ma xalaat ne waa Baye Cheikh daan na mer yéen Moodu. moo sa gis Baye Cheikh toog ba yëkkati moo ma sa toog ba Baye ma Tidiane mu mer wax lu jaaduwul. ah xëy na dina am. ñemee ma maa wax ni amul. waaye moom mosu koo gis man miy jottali mosuma ko gis. wala mu mer ba jëmmam mu ji soppeeku. bokk ko ni jat ne bàyyi seex mi daa mer xëy na am na waaye mosu koo gis man mii mosuma koo gis teyit kenn waxaguma ko kon bàyyi seex ma Tijaan jógee ci moom bég kontaan moo gën a yomb jóge ci moom mel na kon loolu cër la bu ko yàlla jox ñu ngi koy santale yàlla fa tabarakallahu lii moo am solo yàlla mi nu bind moom nu daa wax ci alquran ginnaaw bi mu doon nekkilee tuuti ci histoire yont yàlla noox alayhi salaam bi mu noppee dafa wax moom saa wa tarak na fi l axirina salaamun ala fi l ba aaya ba daanu yàlla dañu yont yàlla noox defaroon na jukkoom defaroon na jukkoom ba jukko ba jukko boobu mu defar ginnaawam dimbali naa man sama borom dimbali naa ko man sama borom ma bàyyi koog ba fa ñu toll koy tagg ci boobu jukkoom kon loolu kilifa gu nekk wala nit ku nekk. rawatina kuy royukaay. rawatina koo xam ne borom ku dëggu. te muy tagg boo xam ne. tagg wu rafet. te mu dëppoo muy la ma def. kon loolu sagam yonentee ko ñaan. bëgg ëllëg ñu koy waxtaane ginnaaw ñu koy roy. nit ñi di ci defaru. loolu kenn ku nekk sa wàll nga ci biir kon ñu ngi sant yàlla bu baax kon sëñ Moodu maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi lay siyaar bu baax di la jaajafal bu baax di nuyu sëñ góor a sarak fa tabaarakallaahu taxaw taxawaay bu rafet kenn ku ne xam nañu sëñ Moodu am na nu ko yàlla bindee yaakaar naa bu coow li bare du sëñ Modou. bu yëngu yi xumbee du sëñ Modou. loolu ñëpp ba ko xam ci moom. waaye sëñ góor mi nekk ci wetam. taxaw na taxawaay bu ma sëkk. moom ak rakkam sëriñ Njaga ak seen rakk Baye Talla Gueye Seck ba lépp mel na war a mel. yaakaar naa bés bi li ci sëñ góor a di daj ak sëñ Njaga ak Baye Talla ak Baye Talla. ak jigéen ñi sax soxna yi ak amin taak maa ami ci seen ndigalal maasàllaaw xalifa bi toog yàlla rek lañ koy seedeel waaye nag seen bopp lañuy ñuy defal nag yann yàlla dëgëral taxawaay yi yàlla dolli wér gi yann yàlla dolli sutura bi mi ngi nuyu yaayam soxna Ayda Boy di ko siyaar di ko ñaanal wér di ko ñaanal jàmm di nuyu sama bàjjan nooy sek di ko siyaar di ko ñaanal jàmm li ñu séq ak Baay Seex Ahmad Tijaan yan na ci yàlla def barke maa ngi nuyu soxna na koy sekk magi xale yi nekk sunu xarit nekk sunu lépp ak rakkam yëpp di ci diital soxna amin fa tabaarakallaahu bàyyiwuma kenn fa tabaarakallaahu sant nañ yàlla gërëm nañu ñëpp jaajëfal ñëpp bàyyi Seex Ahmad Tijaan la mu bëggoon ci ak mbokk la mu da ko daan dund ak di ko waxtaane ak di ca jëf ba kenn ku nekk man cee duut baaraam ba sama yaay masaa ñëw fii seet si magam wala ñun ñii di njaboot ñëw ci moom xamal lu muy waxtaane ñun dina ko dénk suñuy diggante ñun ñu bokk ndey ah na ngeen gën a jàppante de na gën a bàyyantey xel na ngeen di dimbalante na ngeen di ormalante bu ngeen nekkee benn say bu soobee yàlla lu ngeen wut mën naa jàppandi kon bàyyi Cheikh Ahmad Tidiane daawu ko wax rek bàyyi nu waaye da daan jëf ñuy gis kon fa tabarakallahu kon ni mu rabalee mbokk gi rafet na lool looloo tax ñu jël soxna aminta jox ma ko ngir bëgg mbokk gi gën a dëgër fa tabaarakallaahu jël soxna ami yàdd jox maxtaar kon noonu la demee kenn ku nekkit fa nga nekk yaa ngi góorgóorlu soxna amint ni ko ñëpp waxe la taxoon ñu jox nu ko moom ak soxna ndey jóob guddi ak bëccëg ña ca sama xol sedd na ci ñoom maa ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal li ñëw ci kër gi it mel na soxna ami yab fa tabaarikallahu moom ak ay magam ah loolu lañ koy dénk lu man ci baax tër biwu ay magam na ko def ndax loolooy sansam ñu ngi ko ciy sant la yàlla nag ndax mi nga góor góorlu moom am yàgg yal ko yàlla jàppale sama yaay ñëw na barki démb ànd ak njaboot gépp ñuy it teel na noo ñëw dañoo amoon itte ci dëkk bi fa tabaarakallaahu ànd ak ñun war a ànd ak ñëpp kon Baye Cheikh Ahmad Tidiane wàcc na yal na yàlla dolli leeram yàggal taxawaayam njaboot gi yàlla dolli leen sutura dolli leen dimbal alquran gi ñu koy ñaanal mu bëggoon ko lool. nangu woon cee sonn lool ku mu gis nga yor alquran bàyyi seex nangu naa jël alalam jox la ko nee nañ bokk na ci wayaasam yu mujj dem gum demoon Kaolack te nee nañ ma neen ma ko nettali ittee ya ko taxoon a jug bokk na ca ñoo xam ni ay boromi daara mu dem ca ñoom gisee ñoom yëkkate teraanga jox leen ñaanal leen mën na noo wax ne mission ca la ko tënk kon alquran yal na ko wétiri yal nay muuram wasalaamaaleykum wa rahmatullah bu leen fàtte abonné ci seen seen youtube samsu tv jant bi leeral àdduna te activé cloche de notification boobee ngeen di seen si seen écran samsul huda amado Samsul Huda Samsul TV, mais um trem. Samsul TV, mais um trem. Samsul TV, mais um trem. Samsul TV, mais um trem. Samsul TV, Samsul TV, mais um tele delinquaceta. Samsul TV, mais um trem.